mbooloo bu takku jéggi daya lool ba mel ni kuy wane sa doole. njiitu Pastef Ousmane Sonko dal di ñëw ca Parcelles Assainies ci wetu ay junniy junniy ndaw yuy yuuxu ay simili ginnaaw gi militant patriote yooyee yëkkati hymne national mu rëkk ca terrain ak apes ñu ëpp ci mbooloo mi ndaw ñi di xëpp ce combat c'est le combat de toute la jeunesse Déthié Fall moom di feddali xeexam jëm ci wàllu démocratie ak liberté yi moom la attaqué te suñu démocratie ku ko attaqué jàkkaarloo ak ñun il était à en et il sait que nous sommes encore là à faire face Ousmane Sonko dogg ci li muy wax dal di jagle ay kàddoom xale yi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 kenn duma tànnal man ban yoon lay jaar. Aïda Mbodj moom di sàkku ci xale yi ñu dem ñoom ñëpp bindu ji ci liste électorale yi. ñu góorgóorlu dem ci inscription yi révision bi nga xam ne moo waroon a am daf ko def révision exceptionnelle ba pare def ko benn mois ma bëgg ngeen préparer jël seen disposition. carte bi mooy affaire bi. Ahmed Aïdara moom di meeru géejowaay soppaliku na ab rappeur ci xew mi. way fii kenn du ko taal waaw fii kenn du ko taal xoolal ku ko nar a waaw ku ko nar a taal ko taal am na yaakaar ci ndam lu yaatu bu yeewi askan wi ci ngoonu ñaar fukki fan juróom ci weeru février atum 2024. taal naa leen local taal leen député gars yi jékkali leen président. ay junni junni doomu Sénégal ñoo uy si ooteeb conférence bi ëmb lideru yeewi askan bi nga xam ne dafa bëgg ci ñetti fanu manifestation yi ñaawlu salfooñe gi ñuy salfooñe liberté individuelle yi ak collective yi fii ci Sénégal. meeting bu rëy bii nag ñu amal ko ñaari fan ginnaw bi ñu waree amal procès diffamation bu leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko dox ci digganteem ak Mame Mbaye ñu war ko amal fukki fan ak juróom benn ci weeru